ayca jërë ngeen jëf salaamaaleykum ami internet wasaare lamb ak ami internet Jelle bi TV ñoo ngi toujours ànd ki nga xamante ne mooy Ouzin production nee naa la moo fi duggee woon le 18 janvier mu ne mooy arène nationale waaye taxawal na nag komba bu neex ci diggante Tigo xaritu yaam ak Moustique 2 nee naa la combat bi Ouzin cinq grands combats yi presque ay cinq grands combats la ndax combat des gladiateurs waaye nag ñu ngi bëri ki nga xamante ne drapeau la ñuy bëri ba tey Ouzin ci sargal jigéen ji nee naa la 8 mars moo ko moom te du ko bokk ak kenn Tigo xaritu yaayam ak ki nga xamante ne mooy Moustique 2 waaye nag ñu ngi bëri drapeau góor la waaye daf ko jagleel jigéen drapeau Babacar waaye mu ko jagleel ki nga xamante ne mooy kan. Soxna Khady Balla. Soxna Khady Balla présidente des Lébou dañuy jox ki nga xamante ni Tigo mun nuyoo ba pare ñu tàmbali waxtaan Tigo nuyu naa la. waaw fay na la ginnaaw ba bañ sante yàlla di sant Yeesu Christ ah di gërëm maman Marie bi nga xam ne mooy suñu soppe ñu ngi gërëm waa pikin yëpp ah di nuyu tous les téléspectateurs de Djily bi TV ak euh, Wassare TV ah di nuyu Ouzin euh, production di nuyu équipe bu mu àndal bi nekk ci am yëpp di nuyu Akhlu di nuyu sama adversaire ak i mbokkam ah waaw di la dalal ak jàmm. ayca musique de nuyu naa la. waaw gannaaw bañ sant yàlla xam nga julli si nant bi sant suñu ñaari waajur di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu tamit sama ménagère Iba xam nga di nuyu ousin di nuyu sama adversaire Tigo xam waaw di ñaan yàlla na jàmm yàgg xam nga di wax ah, di di di di ñaanal sama sama benn entraîneur boo xam ne dafa dese de fan yee muy Cheikh caam ma koy ñaanal xam nga yàlla xaare ko ci àjjana yi gën a kawe waaw. musique da lan moo la dugal ci Tigo. waaw mais làmb la rek. Tigo mais yow xam nga xam naa ko comme mbër rek mbër la comme mbër yi rek làmb làmb du weesu làmb. xam nga Tigo champion la ndaanaan la. dañ koy sant ndax daf ñoo may chance pour bëreeg ñun. mais mënul weesu làmb. làmb la rek. xam nga di ñaan yàlla defal ñu ci ndam. du yomb de. ñun waruñu lu yomb. mais xam nga ni du yomb sa digganteeg Tigo. buñ doon war lu yomb duñ ko jël. Eh. ñun waruñu lu yomb ci làmb. Tigo xaritu yaayam. waa ah, dafa leer. waaw. Moustique hmm. de dégg lu mu wax nee na dafa nga nangu da nga may sens nee na nga nag waaye nee naa ko Touba Ndiaye moom dina ko sàppi de. waaw ah, mais champion la lay tasantel daa nekk champion moo tax mu gis sama champion. xam nga wax sa baaxu moom du yàq sa baax dara bu noon na wax leneen. Hmm. champion la moom tam parce que ku bëree 4 combats 4 victoires daanaka champion nga. Hmm. xam nga beneen sens làmb ji amul ay may loxo ñi war a daje rek ñooy daje. da ngeen daje waaw mbëri tapet ñooy làmb te moom du tapet <laughs> bu doon tapet day làmbatu xool feneen. di ñaan yàlla suñu borom làmb gis comme que sama retour la la retour de Tigo. waaw waaw yàlla suñu borom kàttal ñu ci barke Mariama may ñu dam ci kawam rek. a ah, lool la xale mag la loolu la wax mais xale mag amul ci làmb de. non xale am na ci làmb. xale amul ci làmb de. moom la nee na. waaw xale la man xale maa ko fuuf sax. Ah. maa ko mag fuuf waaw maa ko mag fuuf sax laa la wax. xam naa ne moom moom moom amagul doom am naa doom comme man man maa ko mag xam bene beneen sens mais làmb si diggéew loolu amu fa. Mm. ñu ne champion la yoo xam dañoo yàgg yëngu ci làmb di entraîner toujours mooy loolu beneen sens bu ñu taxee mënoo gisu ñun euh, mag quoi parce que dañuy bëre. Mm. sikkim ku ci bàyyi xel mu trompé la rek. Euh, sikkim bi ku ci bàyyi xel mu trompé waaw mais non même génération la rek làmb la rek xam nga Tigo mënul nekk mag mag bu tax man làmb xooluma ci ay mag ak ay xale man lu ma war a préparer laay préparer bëreeg Tigo bëreeg ko am deux moo ci yem man làmb dama bàyyi ma lépp ndax làmb moo tax lépp lu ci war dama koy def comprendre nga man xooluma Tigo mag la xooluma paa la xooluma dara damay def li ma war a def ñaan suñu borom may ñu ndam loolu moo ci am solo. mais est-ce que dina yomb ci waaw ah, mais en tout cas daal béykat dugg ci tool mais daal xam naa ne moom yomb ak kii moso man xaaruma lu yomb man damay préparé li ma war a préparé barki Seydina Mohamed man làmb seetuma ci lu yomb mënoon seet lu yomb du ma jël tigo damay tegg jël beneen yoon mais musique de arbitre sifflé ñu tëj barrière yi ñeme ngaa samp jaaga xeex ak ki nga xamante ne mooy Tigo xaritu yaayam en tout cas daal lu làmb ji laaj incha allah dinañ ko def loolu ndax ñeme ngaa xeex ak moom en tout cas li ma lay wax mooy lu a def ba am ndam moom mu daanu waaw waxin la rek ah. waaw lu làmb laaj loolu la def ah. mais Tigo boobu dafa mel ni ñemewu la nag non ñeme na sax dafa nekk mbir wam cër rek mais lu mu joxe-joxe ci si biir géew gi nii benn instant nii dina saf de dina saf sap macha allah waaw champion la nag bërekat la waaw mbapat kat la mbëru mbapat la mbëru mbapat la xam mbëru mbapat moom du ñeme xeex mbëru mbapat moom du ñeme xeex. mais temps yi mbëru mbapat yi dañuy xeex de. ban mbëru mbapat mooy xeex. mbëru mbapat dañuy xeex de mbëru du ñeme xeex. non lamb ji mujj mbëru mbapat ñu fi indi yëpp dañoo duma dañoo daan. mbëru mbapat moo fi duma daan mbëru mbapat du ñeme xeex boo déggee mbëru mbapat moo koo xam day compétir H24 waaw te moom champion la day compétir mbëru mbapat la waaw doomu ndeyam bi muy àndal moo ma njëkk a daan fii muy Pape Thiam mbëru mbapat la comme ñoom xam nan ma waaw mais daf combat bi revanche la euh. revanche la. waru mbapat nga doo xeex. en tout cas daal matu yàlla nañu yàlla may talag fekk ba bis ba lu lamb ji laaj dañ koy def Tigo champion la nangul nañ ko champion vraiment man dama koy sant parce que xam rek dafa ñu may chance bëri ñun mais daal xam naa ne moom na waaj bu baax a baax ñun ñu ngi waaj bu baax a baax xam nga ñaan yàlla mooy ñu ndam incha allah mbapat nga doo xeex ñëwal ko ci xeex bi da war a ne ko damay xeex ak yow ay mbëru mbapat ak mbëru moo si am fii lañ dëkk même bu fekkee dañuy compétir fii lañ dëkk ñun ci temps bi lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yoroo. allah amul benn problème ñu ñaan yàlla may ñu ndam rek loolu du dara. du yomb de. ñun ñu lu yomb wax dëgg yàlla. nay métti daal waaw allah. di ngeen samp jaaga. lu làmb laaj dinañ ko def. non da ngeen war a samp jaaga xeex. Madou xam nga xam nga kenn day samp de man damay samp de. waaw ah. ah, man moom damay samp moom day samp jaag de benn instant xam nga eh. benn instant benn instant nii xam nga mbëru mbapat moom boo ko bëggee daal foog nga duma ko dama koy duma day samp xeex de. Hmm. waaw waaw ma bëgg a duma incha allah maa ngi koy xaar amul benn problème. moom nee na moom dina la duma. waaw waaw ne moom làmb hmm. kenn du dem ci wax say say arme. Hmm. ñun ñu ngi waaj ñu ñaan yàlla may ñu ndam loolu moo ci am solo. yow daa mel da ngay bëri si de. Ah. mais di nga ñam kuu moom lu ko def ñun buñ doon doon moytu ay kuu duñ dugg ci arène euh, man amaguma victoire ci arène nationale naan sama 14 combats de défaites yi am fii laa ko amee ñaan yàlla suñu borom combat bi ñu jublu le 8 mars mu journée de la femme dama cee bëgg a sigil sama yaay sigil sama soxna sigil si képp kuy jigéen parce que mun naa ne la am toof yi ma ci am yëpp sama yaay wane woon ginnaaw ah léegi nag comme que sama yaay defaat na retour mhm. moo ma yokk fit moo tax sax ma dellusiwaat sama gëj a bëre yëpp sama yaay la woon beneen sens mais comme que sama yaay ñëwaat na le retour de Tigo dañuy ñaan yàlla suñ borom ci barke Mariama mi mu sell mi di jigéen mhm. ëmb Yeesu Christ wàcceeku si kaw suuf mhm. jour boobu noonu mu doon suñu bis xaritu yaayam lañ wax comme laamu jooju sama laam a doon. dégg nga lu mu wax de neen xaritu yaayam lañ wax. waaw xalaatam la wax rek fii ku ne xaritu yaayam la ku nekk la wax rek. mais le 8 mars bi dayoo bis bi. waaw di ñaanal xam nga jigéen ñëpp. waaw yàlla defal leen jàmm bu baax a baax a baax xam nga di ñaan tamit yàlla defal ma jàmm ma yóbbul drapeau bi sama yaay incha allahu rabbi loolu laay ñaan yàlla. mais du yomb ci man waruma lu yomb ko man su ma doon war lu yomb tigo bi du ma waaw waaw basi góor a koy bay incha allah. loolu amul problème. tey da ngay bay basi. waaw. ayca <laughs> ba tey ñu ànd ceeg Ouzin production waaye nag mi ngi ànd ki nga xamante ne mooy sponsor leader am ki nga xamante ne mooy Moustapha Mbengue nee naa duñ taay ci di ko wax borom sémi. nee naa la carte bi 1000 francs dong lay jar nga garanti sa bopp à 3500 francs feebar faju ci la bokk waaye duñ fàtte kànji borom TDR. waaye Catalina jigéen ju mën góor duñ ko fàtte bu baax a baax a baax a nee la bas tamit duñ ko fàtte bu baax baax mooy borom vidéo yu nice yi borom vidéo yu rafet bas moo ngi nii toog lu mu defarul baaxul Tigo Aïcha looy tàggatoo. waa sant yàlla rek gërëmaat Ouzin mi nga xam ne tey jii nii moom moo ñu choisir parce que laamu ji léegi dafa yàqu bu dee wax dëgg la dafa yàqu. gis mbër boo xam champion boo xam def na fi lu ne am benn torof torof rek jël ko bu ko si ginnaaw léegi laamu ji doy na waar doy waar boo xam ne affaire kumba nday kumba amul nday la comme ñu ngi sant Ouzin mi nga xam moom moo ñu dellusiwaat te yàlla na nu jik yàlla na nu jik waaw di sant ñi nga xam ne ñoo sponsor am yi ñu di ko jàppale parce que làmb sponsor la promoteur yi bu ñu am sponsor du ñu mën a jëm kanam di waat yeneen sponsor sponsor yaa ngi ci làmb ji ñëw leen jàppale promoteur yi mhm. yi doog a jug koo xam ne ku baax la mhm. te lu baax a ko tax du jug muy kànji di nit ku baax waaw fu mu déggee nit ku nekk torof am torof torof da ciy taxaw ñu ngi koy sant di gërëm di ñaan yàlla may ko fan yu gudd wér gu yaram ndax bu ko amee ret mhm. bébétam bi mu am ci doomu aadama yi ko mën a yeggal yemul dong ci làmb ji ah di sargal képp kuy jigéen di woo sama supporter waa Pikine ñu ngi leen woo di leen ne le retour de Tigo la ñu ngi leen woo Tigo xaritu yaam biir Pikine foo tourné ñu am mbër xanaa da ngaa bàyyi mbër nangam chaque jour ma leen koy wax ne leen noo am problème adversaire rek léegi nag comme que am naa combat ñu ngi leen di woo ngeen ñëw wane seen bopp Ousin mi tëgg combat bi nee na ah Tigo yow amoo supporter de waaw dama bëgg ngeen wan ko ni am naa supporter di wo waa Pikine Pikine cat ba cat maa ngi leen di woo cent pour cent bi laay commencé ñëw yéeg ci deux cent pour cent bi di woo mbër yu mag yi fi nekk ak mbër yu ndaw yi di woo képp ki autorité pikin du lim mais autorité yi xam nañ seen bopp képp koo xam ne drapeau Pikine moom moo la ñor a la ñor maa ngi leen woo waaye di ci jiital forom sama suuf ma yokk sama almeer muy forum bi nga xam dama cee bokk muy ay nit yu baax ma bokk ci ñu ay jullit samay mbokk macha allah di ci teg jeune chrétien engagé yi di leen woo di woo képp kuy taalibe Mariama mu sell bi maa ngi lay woo ci journée boobu noonu nga ñëw jàpp si di woo waa Casamance sama dëkku papa waa Guinée Bissau maa ngi leen woo waaw di woo sama mbokk njaago di leen ne a euh, Burkina Kakomba mu peut-être le 8 mars man ci man njàkku man ci abukku na pal man ci na pal waaw man bofi di famille ba nga kës an ci na pal man man jaku kacep euh, wata di di di arène euh, euh, man du am bukku ba njaku beleng man njaku fom man duin waaw nanacha pour pour moi bu ichim adversaire ni kajaka musik waaw katimul kacar nyache mekul waaw maruun man njaku beleng waaw famille bankasui ba ñampupal maruun beleng waaw xam nga Moustique yaa dugg si njaago yi. loolu du dara. non Moustique am nga problème. waaw lii mënut a weesu lam. laa ilaha illallah cey Ouzin production. duggul ci njaago yi dong de. man damay di séeréer. Eh. sama maam Jogob Njaay séeréer la dëkk Foundiougne may joolaa eh. sama maam sama eh, yaay ki jur di njaago di joola waa Adiyaan maa ngi woo waa Adiyaan samay mbokk yaay sama yaay yaayam kiko jur waa Adiyaan la joolaa la. ki jur yaayam bi jigéen di jogob njaay fu njuuñ fu njuuñ ñëpp xam nan ma dama rax ñett eh, ñett laa rax te ñett yooyu buñ jaxasoo si laam ju baax prem eh, taw la ñuy àndaale àndaale cere eh. àndaale terre blanco ñett yooyu la ñuy àndaale yee beneen musique musique wooteel waaw xam nga damay damay sant bu baax euh, sama sama coach sama papa mun naa ne sama papa la muy papa Ndiaye maa ngi koy sant bu baax gis naa coono mi da ci man bu loolu weesoo xam nga dañuy lancer appel mhm. vraiment bailleurs yi ñu ñëw jàppale parce que wax dëgg yàlla ku jàppale Ouzin nekk Ouzin nga jàppale toute une famille nga jàppale mhm. toute une jeunesse nga jàppale mhm. di wax ni kontaan nañ si ne daal gis na mu jàppale Ouzin di ko wax ni mhm. boo jàppale Ouzin nekkul Ouzin rek nga jàppale jeunesse nga jàppale ah, xam nga di woo di woo waa Géejawaay yëpp autorité Géejawaay yëpp maa ngi di woo si combat di woo sama tonf Lirou Diane maa koy baax si combat waaw noonu la la noonu loolu dara xam nga waaw loolu dara man te Tigo kay day wax fii wax même wax tuddi loolu du problème amul problème judool sax Pikine garaawul judool Guédiawaye ah. waaw en tout cas daal waaw di woo liiru jaan baax di woo euh, borom G2D président Ousmane Bopp waaw mi may jàppale bu baax sonn na ci affaire bu baax waaw borom Guédiawaye maa ngi koy woo bu baax di woo Limam xam ma di woo Aliou di woo El Capo Barcelone maa ngi koy woo bu baax di woo waa waaw di woo waa Minam olympique de Minam yëpp maa leen di woo xam nga di woo tamit waa Thiaroye Gare bu baax a baax di woo tamit dëkk yi may ñaanal yëpp maa leen di woo ci combat bi jarul ñoom xam eh, lim na da ngay lim du ma lim eh, lim na lim non du ma lim non damay bañ mu dugg foofu xam nga waaw di dugg foofu ba pare waaw amul amul ma woo est-ce que tee <laughs> du ma lim maa maa ngi woo dëkk yi may jàppale yëpp xam nga di woo waa waa waa waa waa Casamance yëpp maa leen di woo bu baax a baax a baax waaw waaw loolu dara waaw loolu dara loolu dara loolu dara xam nga di eh. sant Ibou Joolaa bu baax a baax a baax xam nga di sant Laat sant Zos Taal mi ma àndal maa ngi koy sant bu baax di woo waa Géejawaay yëpp di leen wax ñu jàpp ci combat bi xam nga di woo képp kuy autorité Géejawaay xam nga di woo euh, baara Gaye di woo président Mour Gueye xam nga di woo daal autorité yëpp ñu ñëw jàpp si daal seen doom mooy bëre daal incha allahu rabbi di ñaan yàlla defal ñu ndam incha allah. Mhm. Mhm. ayca dañ ciy woo sama xarit dañ ciy woo sama xarit bu baax a baax a baax nen Fatoumata Tall jigéenu Ousin xaritu jeunesse bi Néné Fatoumata Tall ndax boo xoolee moom lañ tuddee grand combat bi waaye jour boobu journée sargal jigéen la kenn du Ouzin production nee naa ñëw leen ngeen jàppale ko baax a baax. waaw pare ko xam di wax di liiru maa ngi koy woo bu baax moom laa tuddee combat bi. di woo tamit eh. eh. ma waaw ma moom mooy jàppale ma xam di ñaanal Tigo yàlla defal ko jàmm di ñaanal may man tam insha allahu rabbi Tigo suñu grand la xam nga jox nañ ko respect jox ko la du weesu làmb xam nga respecté bu baax mm-hmm. mais du sedd insha allah xam nga di ñaan yàlla defal ñu ndam waaw maa ngi ah. woo waa ñàgga waaw maa ngi woo waa ñàgga parce que jamono toll ni ñàgga nekk fa laay liggéey doomu ñàgga laa jamono toll nii comme ni ma nekkee doomu Pikine di woo sama yaay Khady Balla mi nga xam ne tey jii nii mooy présidente lébu yi di woo doomam yëpp ki nga xam ne moom mooy Pa Modou maa ngi koy woo di woo Babacar mi nga xam ne tey jii nii ginnaaw mom moom moom moo lii am moom moo tax lii taxaw maa ngi koy woo te dégg naa moom lañ tuddee drapeau bi muy drapeau am yaa ngi dégg la di ñaan yàlla na ma drapeau bi jik di woo aji aji di woo di woo képp kuy doomu Xadi Balla képp kuy càmmiñu Xadi Balla maa ngi lay woo di woo waa Lac Rose ñëpp waaw di woo samay mboq na ñu ñëw jàppal mi si combat bi le retour de Tigo waaw waaw xam nga di di di sant sama gaay bu baax di sant Njool di sant xam nga Pape Pape Thiam di ko sant di sant Aale di sant Bakary xam nga maa ngi sant bu baax di sant Modou Lo bu baax a baax di sant sab sama waa koñ sonal naa leen trop xam nga gis naa bu ma amee bés ni ñu ciy sonnee xam nga gis naa na combat nañ ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam taxaw na nag ki nga xamante ne mooy promoteur bi nee naa la Ouzin kenn dootu ko ràññee nañ ko ci làmb fi mu nekk nee naa mooy borom mercredi ndax gis nañ la 18 janvier li mu fi def dama ko xëy woo ko ne ko Ouzin dama ko eh, def nga arène national doom yombul mu nekk jeune promoteur nekk xale ñi ay moromam lañ mu jël ay béyam jël xaalisam di leen tëgg kon maa ngi lancé appel yi nga xamante ne mooy sponsor yi sponsor yi ñëw leen ngeen jàppale Ouzin bu baax a baax baax a baax a baax ñëw leen ngeen jàppale ko Ouzin dama bëgg muy am dix vingt ba vingt ba trente sponsor muy takk stade bi muy fees dell ngeen koy jàppale Ouzin nuyu nañ la maa lay fay matu di la bu baax di nuyu bi fi nekk yëpp di nuyu Bas. Mm. borom wasaare làmb. maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di nuyu Iba vraiment di nuyu Karbala ñi fi nekk ñëpp staff Ouzin production maa ngi leen nuyu. waaye di nuyu sama rakk bu baax ji muy euh, Moustique 2 mm-hmm. di nuyu sama frère Tigo vraiment di leen remercier ci maanaam ni journée bi tax ni seen combat bi taxawee parce que Tigo laay remercier sax di ko jaarale ci Badou Maya parce que ci moom na combat bi jaare mm-hmm. bi ma wooyee Tigo vraiment mu xamal ma ni moom dafa bëgg def retour ci làmb bi ñu ko proposé rakkam tamit muy musique musique na ni mën boo bu ko grand bi mayee sens dina jël quoi kon tey bi combat bi taxawee ci nii vraiment dama la di sant ñoom ñaan ñëpp di ñaan yàlla na nekk combat jàmm ak salaam journée de la femme la fii le 8 mars septième position drapeau Khady Balla nekk yaayu Babacar mm-hmm. vraiment mu nekk loo xamante ni fii nañ ko war a def di ñaan yàlla ni ñu signee nii ñu bëree ko noonu ci jàmm ak salaam ku yàlla may ndam mu jël ku yàlla xañ tamit nga préparé waat wutaat leneen ñii samay frère leen man nag ñoom ñoo far lu ci bari maanaam boo gisee tey aw mu ñëw sponsor mais ñoom ay sponsor la parce que seen seen cachet ak man dañ cee dugal promoteur bu amul sponsor la dañ koy jàppale mm-hmm. kon ñoom ñooy sponsor numéro un yi vraiment di leen gërëm bu baax di leen sant ni seen combat taxawee journée bi nag comme ni ngeen ko waxee journée de la femme la muy drapeau madame le ministre Néné Fatoumata Tall mu nekk grand combat bi ñii lancé nañ ko début xamal nañ ko nekkoon sa journée nañuy bëree kon dañu bëgg nga jàppale ñu kon loolu dana ko dégg incha allah kon nen ne ñu ngi lay wax ne la vraiment sa journée le 8 mars premier combat ba ci dernier combat ñëpp jàppal ni sa sa drapeau nañuy bëree mm-hmm. kon loolu ñu ngi ko ci ñu ngi koy lancé appel en tant que man frère am Ousin maa ngi koy lancé bu baax que Néné Tall na jàppale mbër yi parce que ñun li ñuy jàppale ci mbër yi na jëm mhm. te mbër li ñu leen di jox tamit ci seen waajur yi na jëm mhm. kon làmb lool la rek kon ñu ngi leen di lancer appel ñëpp ñu jàpp ci waaye comme ni nga ko waxee tamit du ñu pare du ñu gërëm suñu grand Moustapha Mbeng mhm. borom union régionale mutuelle de santé vraiment moom it vraiment ñu ngi koy lancer di ko di ko tàllal loxo mu jàppale mbër yi bu baax ci journée yi ñuy def parce que moom sama partenaire la moom du sponsor partenaire la di di di di taxaw ci kenn tamit muy Millennium assurance Millennium assurance muy euh, ki nga xamante ne mooy Moustapha moom it Moustapha na tudd vraiment nekk ku baax ci Ouzin production waaye keew xamante ni muy euh, kañ borom TDR moom bàyyi naa léegi mbër yi wax baax baaxam ak li mu mel kooku mën nañ koy ñaanal yàlla rek bon kañ production borom TDR waaye Katarina dëgg fa yàlla gis nañ du ma ne man kese mais li muy def làmb ji kooku dafa dafa dafa yeyoo ñëpp gërëm ko sant ko parce que daf moo benn wax ba am solo fi keroog Ouzin damay ñëw fekk door a ma jàppale ko ba mu taxaw loolu dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolam ak yéeneem kon vraiment li may wax daal matu yow it aw ma sa fay yow yaay sponsor Ouzin numéro un parce que yow heure bi ma la wooyee la dañuy def face à nga bàyyi sa yite ñëw kon ngi la ciy gërëm gërëmaat bu baax ki nga xamante ni moom mooy euh, nu mu tëddee bas bas samay làmb heure bu ne laa koy woow ne ko defal ma publicité defal ma lii defal ma lii te yàlla xam na ne du ci gàntu du ci wax dara dama ci defal ci yéene. Mhm. na koy defee kon kooku bu ma yore micro dama ko koy gërëmee. muy bas mi taxaw wax dëgg yàlla. Mhm. face bi léegi laa ko wax mu bàyyi li muy def taal moto ñëw mhm. loolu dañ koy gërëm. encore une fois di remercier ñaari mbër yëpp di leen ñaan yàlla daal le 8 mars ñu bëree ko ci jàmm. bëre ko ci jàmm waaye li ma wax sànq tudd naa dinaa ko tuddaat muy Iba. le grand ménager lii bu yombee wala mu taxaw nii moom la <laughs> sama journée bi passe gis nga lim ci daj. gis nga lim si daj ah, wax dëgg yàlla bu ménager yëpp day mel ni moom ah promoteur yi yaakaar naa dinañ xaw suqaliku de mm. parce que ci dëgg nay dox ci fulla nay dox ci fayda nay dox mm. te buggul liy gaañ promoteur kon tey vraiment bu ñu amee ñu mel noonu dañ bu ñu dékkee micro dañ leen koy wax mm. kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam Aïcha jaajëfal nañ ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ di leen jox rendez-vous le 8 mars ak Ouzin Production nee naa lu yomb ci diggante Tigo xaritu yaayam ak kan Moustique 2 du yomb de Guédiawaye Pikine encore le derby lii